إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ñu ngi seede na moom dong mooy ki yeyoo ñu koy jaamu moom dong yeyoo yaakaar moom dong yeyoo ragal borom boobu jalla wa ala kim doyloo woon yónni ko ci ñun mooy suñu yonente ba sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu war a gëm war koo topp ay waxam rek la yàlla wax lu safaanoog waxam neen la nam doon jaamoo yàlla rek la yàlla gërëm lu safaanoog moom neen la gannaaw loolu mbokk jullit sunu xutbab tey bii ñi ngi koy jëmale ci fàttali ni jaamu bi yàlla day buy jaamu yàlla da ko boo war a boole ragal yàlla ak yaakaar yàlla ngalawaay mbokk jullit na ngeen doon ñoo xam ni da ngeen di yaakaar yërmande yàlla ca dëggale loolu ca la nga xam ne mooy jëf yu baax yi leen ca yóbbu waaye it ragal leen bëggalum yàlla ca dëggale ko moytu jëf yu bon yi leen ca yóbbu suñ borom de bind na àjjanaam ja ba pare waajalu ko lu dul jaamam yaka ragal def ay ndigalam bàyyi ay tereem yal na yàlla boolu ñu ca waaye bind na safaram sa de ma nga nekk di xaar ab listam mooy ña nga xam ne nii dañoo bokkaale seen boroom teg gi ay ndigalam doonte ne mbokk jullit suñu borom yàlla àjjana joojee nga xam ne mooy lu xel munte imaginer la fa nekk ci xéewal bépp doomu aadama bu xellu dara waru koo dox digganteem ak waajal ko suñu borom yàlla da koo ñàkk da koo ñage ci ay coono ñage ko ci ay fitna ñage ko ci ay jafe-jafe looloo tax ba mbokk ngërëmal yàlla da caa bokk jóg di jihaat ci yoonu yàlla yeneen ci bekki saxaabaam seen kër-kër yépp bëggoon a dugg àddina rek a tax ñu daan jóg di fanaan àll di yendu àll di fa bàyyi ay loxo ak i tànk di fa tuur seen deret di fa bàyyi seeni bakkan loolu lépp ngir am aljanna waaye gannaaw loolu mbokk jullit lii di saxal koor saxal zakat saxal saxal la nga xam ne muy julli yii yépp mbir la yoo xam ne ku muñul doo ko man xattaa julli googu suñu borom mu ne taxawalal julli ci ay waxtoom ca nga muñ ci loolu ca xam ne yàlla du neenal jëfi képp kuy rafetal mbokk mboole mi jaamu yàlla nga dund ko sax ca ba dee fekke la ca aji muñ rek moo ko man muñ bu doon ab oto dañ naan mooy essence su oto ba fa essence ba yem fa la oto ba yem loolu tax ba doomu aadama bi muñ gi ngay muñ ci ndigalu yàlla ak muñ gi ngay muñ ci tere yàlla loolee mooy la nga xam ne moo lay yóbbu fu muñ nga jeexe jeex na waaye mbokk yi noonu it lañ gisee sawaraa nga ne bépp borom xel bu ko du bu ko dégg àdduna ak li ci biiram warul jar nga dugg fa waaye nag suñu borom da koo wodde da koo ñege ay bànneex mbokk lay yóbbu sawara mooy lan mooy sàngara su bon si njaaloo su bon si lekk riba lekk alal joo xam ne ni alali jàmbur la la nga xamee ne muy tur bakkan ya ngir faj sa merum xol yooyu yépp mbokk suñu borom moom la ñage sawar looloo tax ñu bëri ci doomu aadama yi mënuñu caa mucc loolu nag moo tax ba yow mi xellu waajalal sa bopp ci góorgóorlu gannaaw ba nga gëmee sa borom nga góorgóorlu ci jëf yu baax yi waaye góorgóorlu muñ ca ba baa ngay dajeeg sa borom yéen a ngi fàttaliku xutba biñ mujj a def ak yéen fii ci mandarga ibaadu rahman suñu borom mu ne ulaayika yujzawna al ghurfata bima sabaru ba yàlla waxee seen jëf yu tedd ya lam ko tëje mooy fay nañ leen àjjana yu kawe ya ca muñ ya ñi mu ñoon loolu tax ba saar bu gàtt bi nga xam ni imaamu shafii da doon wax bu doon moom rek la yàlla wàcc ci alquran dana doon lay ci kaw jaam yi moom mooy wal asr suñu borom mu ne maa ngi giñ ci jamono doomu aadama yépp ñi ngi ci perte xanaa lu dul ñu gëm cay def lu baax di diglente lu la nga xam ne nii mooy dëgg waaye di diglente ak muñ galla way doomu aadama bàyyi leen xel adduna bi xoolal bi nga fiy ñëw yaramu neen nga fi ñëwee xoolal keroog ba ngay dem say mbokk dañ lay futti ba nga set ñu jël ay perkaal la ma sële ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñett bi nga gunge doomu aadama mooy ay jege ñaaleem mooy mbokk ya xarit ya ak la nga xam ne mooy lam jota moom ci àdduna na doon ay pale la na doon ay tool la na doon lu mën a doon waaye ak jëfam nee na suñ demee ba tàbbal la bàmmeel mbokk ya ak wëllëree ñoom daal di dellu nibbi alal jang fi dajale woon ñu dem séddoo ko yow dong nga desut say jëf looloo tax ku nekk ci ñun war naa ragal jëfam jëf ba muy dajeeg yowmal qiyaama suñu borom nee na ki jàkkaarloog jëfam yi bon yowmal qiyaama dana yaa layte nii yaa layte bayni ne wa baynaha amadan baida ay way ak neexoon jëf ji ma sori woon ko ne penkoog sowu sore looloo tax ba ngalla way nañuy góorgóorlu suñu kéemtaleel kattan ñu jéem a xeex ak suñu bakkan yi suñu borom nee na qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha xeex ak suñu bakkan ba lépp lum ñu yóbbu ca bànneex ñu méngale koog ragal la nga xam ne muy mbugal ba nekk ca gannaaw loolu na doon loolee njaalool laak carte laak wax ju bon laak lum mën a doon nga la way nga ragal yàlla ragal lii su ma ko defee lan la ngay la may jural su ko defee yow doomu aadama daiman da ngaa war a góorgóorlu boole ñaar yi ci soxal mooy ragal yàlla ak yaakaar yàlla bul bokk ci jaam yi nga xam ne dañoo yaakaar rek ne ñoom daal yàlla moom du buggal ab jaamam suñu dee rek àjjana lañ jëm suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne moo ana kan mooy am xel mu dal ci pexe yi yàlla di fexe ak moom xanaa ko dul ku ku nar a perte bokk na ci mandarga yi wañu ne kii day nit ku perte la ku nar a dem sawara mooy ku dem ba ragalatoo sawara ba ragalatoo mbugalum yàlla suñu borom mu ni fala yamunu makra allah illa alqawmu alxaasirun ñu perte rek la waaye itamit bul doon koo xamee ne nii da ngay jàpp ne man alkuna man daal li ma def ci mbon xam naa sawara rek laa jëm déedéet borom bi jalla wa ala mu ne ngalla waay wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa daalun ana kan mooy dem bay dindi yaakaaram ci yàlla xanaa lu dul ko réer sunu borom jalla wa ala ci yërmandeem mu ne ay yéen samay jaam ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ay yéen samay jaam yi nga xam ne jéggi ngeen dayoo ci seen bopp bu leen dindi seen yërma seen yaakaar ci yërmande yàlla jaam yooyu mooy ñan ay yéen agresseurs yi ay yéen góor jigéen yi ay yéen lekkatu riba yi ay yéen taalkatu fitna yi suñu borom yàlla mu ne tuub leen dellu ci yàlla yàlla day bale bakkaar yépp waaye loolu nag def leen ko bala leen dee di dikkal ba ko doomu aadama boo toogee sa lalu dee fokk nga tuub fokk nga tuub waaye tuub ga du la jëriñ dara inna allaha la yaqbalu tawbata abdin ma lam yuxargir boo demee ba sukuraat tuub dootu la jëriñ kon tuub leen yàlla bal leen ak loo mën a def rey nga nit naan nga njaaloo nga téeméer yoon tuubal yàlla bal la lii mbokk yàlla suñu borom yàlla subhanahu wa taala woote jëmi ñu góorgóorlu suñu xol bi ñu saxal ci ragal yàlla saxal ci yaakaar yàlla suñu borom moo ñu sant ñu jàng alquran jëlal téereb yàlla bi ubbil daanaka néew na page yu ubbi fekk fa lu lay won luy tax nga ragal yàlla waaye lu lay won lu tax nga yaakaar yàlla ca saar yu mag ya saar yu suufe ya fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi aishatin radiya wa amma man xafat mawazinu fa ummuhu hawiya suñu borom yàlla ne àllaaxiraa ngi ñëw koo xam ne say balance jëf yu baax gën naa diis ajjana moo lay xaar koo xam ne say yu bon ëpp sawara moo lay xaar say jëf yu baax naka la toll ay mbokk julit ana kan ci ñun moo xam ndax yàlla nangul na ko am déet suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون جام ييغا خامني ني ñoy jëkkante ci yiw ulaika yusarihuna fil khairat borom bi neena moy ñay def la yalla gërem and ko tiit ak ragal sun yaay aisha nak yonenti yalla bi xana ñi moy sa jaalo kat yi nek ci xet bi lek ko riba yi nek ci xet bi ñoy def bakkar ba pare di ragal mu ne dedet aisha li moy ñay julé ko wor ak aj makka ba pare di tiit ndax yàlla nangul na leen ab déet mbokk kii mooy ab julit xol ba dee fees dell ci ragal yàlla donte ni dee fees dell ci yaakaar yàlla sunu borom yàlla subhanahu wa taala ŋaññi aw xeet yoo xam ne jaaroon nañ fi ña ca jiitu woon bokkoon na ca waa aat luñ doon wax yonent yàlla huut sa wax ji jarul nga koy wax wa ma nahnu bi muazzabin ñun yàlla duñu mbugal mukk yàlla ñu jox kattan bu mu joxul kenn yàlla nekk suñuy farandoo yàlla du ñu mugal mbokk mi ngi noonu loolee mbokk musiba la boo xamee ne nii raam na ba dugg ci jaam yu yàlla yu bari waaye mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala day loolee moom digu ko kenn borom bi dafa teg ay chartam daa di teg aw yoonam yoon boobee ka ca tege mooy ka texe kaka won gannaaw moom mooy ka alku ka perte donte ne borom bi wax nañu ne ndax jàpp ngeen ne danaa leen bàyyi ngeen dund ca la nga xamee ne nii mooy jàmm dee ci jàmm ca dikkalu leen lu mel ne li dikkaloon ñu leen jiitu woon massatuhum albasa wa darra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wa allazina amanu ma'ah mata nasrullah ngalla way julit xamal ne yaa ngi nekk ci benn jihad jihad boobu mooy lan yaa ngi xeex ak temps dund gii la yàlla may bépp bis day compté bépp waxtu day compté xamal ne waxtu wu ne mën nga caa alko waxtu wu ne mën nga caa texe bés bu nekk la nga xamee ne moom ngay xëy di def mën na laa jegeel sa ngërëmal borom mën na laa alagit looloo tax julit moom di ragal fu mu mën a toll suñu borom mu ne amma man xaafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa ki nga xam ne ragal ne bis biñ koy taxawal ci kanamu boromam mu daal di xeex ak bakkanam dox digganteeg lépp loo xamee ni lu xaram la ku mel nii day borom bi mu ne àjjana may wàccuwaayam waaye waajee nga xamee ne nii dafa topp la nga xam ne ni mooy bànneexu bakkanam mi ngi noonu suñu borom yàlla mu ne ko mel noonu day sawara may wàcc waayam looloo tax ba mbokk julit nañu góorgóorlu ci suñu kemtaleel kattan jéem a bàyyiwaat jamono ji ñuy dund ay waay xam leen ne ñoo ngi dund ci jamono joo xam ni moo ñu gën a poussé ñu def suñu xutba bi doomu aadama yi ñi ngi concours ci fexe ba jaami yàlla yi nu ñu leen wëlbatee ci seen borom yóbbu leen ñu yaakaar keneen ci jaami yàlla yi loolu nag nañ koy ami mooy dañuy fexe ba teggi ci ñoom ragal yàlla yaakaar loo leen ne leen diw mii day képp koo xam ne bokk na ci mbooloom da ngay gis ne àddina nga jëm amul benn problème doomu aadama yi créé nañu ay mbooloo yoo xam ne ku ci xis ba bokk sa àddina garanti na am na ci ñu yegg sax ba ne sa àjjanay doom sa àjjanay sët ba juróom ñaari sët ñoom ñëpp seen àjjana garanti na mbokk jurit loolu yàlla waxu ko yonent yàlla waxu ko yonent yàlla bi yàlla yónni woon taxaw na ca safa ca makka daa di ne ay yéen waa makka fexe leen ba musal seen bopp ci sawara mënuluma leen ca kanamu yàlla dara ay yéen bani haashim mënuluma leen ca kanamu yàlla dara ay fatima sama doom jaamul yàlla fexe bu mucc ci sawara mënuluma leen ci yàlla dara mbokk yowma alqiyama mooy yowma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yowma izin lillah mooy bis bi nga xamee ne nii kenn du manal kenn dara mbir yépp ci loxo yàlla la nekk dana jël doomu yeneen ci yàlla nuux ak soxnaam ci kanamu mboole mi mbindaa fanam fadam leen sànni sawara woo ibrahim ki mu waxoon na mooy xaritam jël baayam fodom sanni sawara loolu lépp mbokk ba ñu ko yàlla waxee teel nañoo avertir mbokk ko baax xam ko baax liggéeyal ko baax comme ñoom niñ koy waxee wallahi mbokk julit du la jëriñ dara bu dee ne sa ngëm gëmoo ko na ko yàlla gëmloo topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara la loolu dul jëriñ képp koo xam ne yaa ngi yaakaar mu lay xeccali yowm alqiyaama wallahi yowm alqiyaama bu yàlla indee sawara ba sawara jajj ak jajj mboolem yonent ya fa nekk mboolem malaaka ñëppay tiit ñëppay toroxlu naan rabbi nafsi nafsi ay yàlla suma bakkan laa la laaj ay yàlla suma bakkan laa la laaj loolee ñu bàyyi ko xel lu baax moo tax a rasul sallallahu alayhi wa sallam num naan wax law taalamuna ma aalamu la daxiktum qalila wala bakaytum kasira tey bu ngeen xamoon li ma xam seeni jooy dana bëri lool seeni reetaan dana néew néew lool looloo tax sahaaba ya xamoon ca lenn lam xamoon noonu la ñu meroon abu bakarin saddiq radiallahu anhu musul nekk di jàng alquran keroog ba yonent bi ni woo leen abu bakar mu jiite mbooloo mi te feebar ba mu faatu lan la Aïcha wax abu bakar mum te jiite ndax moom buy jàng alquran du mën a téye ay bëtam waaye yonent bi ne na jiite rek omar ibnul xataab di ñaareelu personnalité yi ca ña gëmoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne nekk na di jàng téere borom bi jiite sahabatul kiram sunu borom subhanahu wa taala fa muy jàng inna azaba rabbika la waaqi ma lahu min dafi sa mbugalu borom day mi ngi ñëw ca kenn mënu koo fekk mu jooy ca julli ga jooy goo xam ne toog na semaine sahaaba yi dem di ko seeti këram mbokk ñii mooy ñi yonent bi alayhi salatu wasalaam yaroon usman ibnu affan musul tim bàmmeel lu dul jooy na jooy yu tor ñu ne ko ay yow amirul muminin da ngay jàng alquran duñ la gis ngay jooy jooy yi mu ne déedéet xabru bi mooy première étape ci étape yowm alqiyama su baaxee la ci gannaaw baax na su bonee la ca gannaaw bon na cay bu doon te ne xam ngeen dëgg-dëgg xam mbokk doomu aadama dafa war a ragal kañ lay dee naka lay dee kañ lay jëkk a fanaan ci xabruwam naka la fay fanaani buñ koy dekkal naka la koy dekkalee omar ibnu abdul aziz rahimahullah nga xam ne dañ naan xulafaa u rachidin bi ñu amoon ku leen juróomeel moom lay doon daana toog mi ngi noonu man nga xool rek nga xam ne nii moom mooy ah zaydu ibn awsh ibn xushib day wax ne ñaar ñi day fekk naa seen dund omar ibnu abdul aziz ak xasanul basri xasanul basri ca borom xam-xam ya dañ ne moo doon sangu génération yi topp ci sahaaba ya omar ibnul abdul aziz mooy premier buur bi gën a mag ci l'islam bu dëppoog sunna yonente bi salallahu alayhi wa sallam waaye nee na day ñoom dañu meloon ni aj sawara ñoom ñaar rek la ko yàlla bindal ñoom ñaar rek la ko yàlla bindal xasanul basri ci jaamu yàllam bu rëy ga ak xam-xamam bu rëy ba jooy yëm daan dikk di jooy ñu laaj ko waaw imam xasan looy jooy nii foo toll rek mu ne waaw ba yowmal qiyaami yàlla ne woo leen xasanul basri jàpp leen yóbbu sawara kan moo koy laaj lu tax mi ngi noonu omar ibnul abdul aziz nekk ca këram di jooy jooy yi metti soxnaam sa fatima ànd ak moom di jooy mujj waa kër gépp di jooy gannaaw ba ñu laaj ko waaw amirul muminin lan ngay jooy mu ne dama xalaat day bis a ngi ñëw ci suñu kanam yàlla dana dajale jaam yépp atte leen xaaj leen na mbooloo mi yóbbu leen sawara mbooloo mi yóbbu leen àjjana mu bokkee réew koy Omar ibnul Aziz ci ban mbooloo lay bokk loolu moo ko joyloo lii nag mbokk bu ñu xoolee safa noona ak li xew ci rajo yeeg télévision yi mooy sëñ caam liggéeyal na yàlla loo xam ne ñun ñëpp xat nañ ci sëñ demba liggéeyal na yàlla loo xam ne ñun ñëpp yóbbaale nañu képp ko yaakaar diw na sa xam ne sa xel na dal képp koo xam ne suul nañ ko place sangam na sa xel na dal yàlla du la xisaab àjjana mooy sa wàccuwaay wallahi lazi la ilaha illa huwa mbokk jurit loolu daa dab islaam safaanoo naag sëriñ su jëkk ja imaamu malik rahimahullah bokk na lu mu daan wax ak neexoon ma am mbooloo moomu mënoon a fay ñuy wër rek di wax nit ñi annaar annaar ittaqu naar nee na bëggoon na am ñoo xam ne lam leen di liggéeyloo rek moo ñu dox ci nit ñi naan leen ragal leen sawara ragal leen sawara ñun nag ñooy dund jamono boo xam ne sawara génn nañ ko suñu programme ñun ñooy dund jamono joo xam ne jàpp nañu ñun ñëpp àjjana lañ jëm bila xisaab mbokk loolu na ma ko waxe ci biir xutba bi ah wa man ya'mun min makrillah illa alqawmul xaasirun ñenn dong ñooy dem ba seen xel dal ci ne yàlla du leen bëggal mukk mooy ña nga xamee ne nii dañoo nar a perte yawmal qiyaama yal na yàlla booleel ñu ragal gu mat sëkk booleel ñu yaakaar ko yaakaar gu mat sëkk yal na ñu yàlla tabbal aljanna yombalal ñu lépp lu ñuy tabbal aljanna yal na ñu yàlla musal ci sawara te yombalal ñu lépp lu ñuy musal sawara yal na yàlla musal ñu musal suñu njaboot te wootekat yi nga xam ne ñooy woote jëme sawara yal na yàlla musal ñu musal suñu njaboot ci képp ku leen nar a teqalee ak yaakaar yàlla ak ragal yàlla yal na yàlla may ñu mujj gu rafet defal ñu àjjana mi suñu wàccuwaay allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin